alors euh, ni ñu leen ko doon waxee euh, tey jëlee ci euh, CHAN bi la ñuy wax muy championnat d'Afrique des nations Marcel n'est-ce pas ci loolu lañuy tàmbali ak phase de poule yi nga xam ne tëj nañ ko démb n'est-ce ah, pas tëj nañ ko démb soxna naata benn tableau kon des quarts de finale qui est au complet ginnaaw ñaar bi yi nga xamante ne Euh, mooy euh, sélection bu Mauritanie ak bu Niger daal di qualifié wu kon ñoom tamit démb euh, ci li nga xamante ne moom mooy quart de finale yu nar a am aljuma ji nar a commencé aljuma ji di ñëw donc ñu daal di ñëw rek compléter liste pays qualifiés pour les quarts de finale de la septième édition du CHAN du championnat d'Afrique des nations ñu gën ko xamee kon ci CHAN 2022 pour cette édition Mauritanie kon ñuy fàttali daal di dóor Mali benn bal ci dara Niger moom tamit daal di dóor. Euh, Cameroun euh, benn bal ci dara kon ñu am léegi juróom-ñetti sélection locale euh, yu jóge ci continent africain yi nga xamante ni dinañ bokk kon ci quart de finale yooyu ñuy fàttali que juróom benn sélection la balaa démb ñoom qualifié woon nañ ba pare kon Algérie la woon Mozambique Sénégal Côte d'Ivoire Madagascar ak tamit Ghana ñuy fàttali que ci réew yi nga xamante ne dañoo qualifié pour le tour suivant amul kenn ku ci qualifié te nga xamante ne jotoon na gagné tournoi bi le ci juróom benn édition yi jot a muy république démocratique du Congo euh, moom nga xamante ni jël na ñaari yoon euh, CHAN bi waaye moom dañ ko daal di rek togloo en phase de poule euh, dans la poule du Sénégal la poule B on y reviendra plus tard le Maroc moom tamit nga xamante ni deux fois la daal di nekk vainqueur édition en tout cas coupe d'Afrique championnat d'Afrique des nations mu daal di rek forfait dinañ ci dellusiwaat tamit et puis la Tunisie moom nga xamante ni l sax ci phase finale bi ndegam dañ ko éliminer ci qualification yi et puis la Libye moom tamit éliminé au premier ko des tenants du qui euh, ne défendra qui ne défendront pas leur titre mhm. donc euh, dès les quarts de finale soxna Naata. Euh, malheureusement alors Marcel ñu taxaw tuuti ci affiche su quart de finale yi. affiche su quart de finale yi nga xamante ne mën nañ wax ne ne ay ñetti stade ñoom ñoo koy nar a dalal stade d'Alger Annaba Oran nga xamante ne foofu lay nar a tàmbalee kon maa ngi ko doon wax à partir de vendredi vendredi 27 janvier 2023 sax nar a tàmbalee Algérie Côte d'Ivoire bi nar a am à 16h GMT ca stade Nelson Mandela bu Baraki ca banlieue capitale bu Algérie bi di Alger. ensuite le même vendredi kon Sénégal nar a euh, dajeek Mauritanie à partir de 19h GMT ca stade Anaba et puis le samedi 28 janvier 2023 ñaari match tamit euh, une paire de manches Madagascar Mozambique bi nar a commencé à 16h GMT au stade Mohamed Hamlaoui bu Constantine et puis le même samedi à 19h GMT Niger euh, di nar a jouer ak équipe Ghana au stade Miloud Hadefi dans la banlieue d'Oran Soxna Naata. Et puis Marcel, on a remarqué que phase de police a été assez spéciale. Pourquoi? Assez spéciale, oui. assez inédit mun nañu ko waxee. noonu ndaxte déjà ñu taxaw ci kaw Maroc bi nga xamante ni gannaaw euh, tergiversation yi bëri woon na moom nga xamante ni moom mooy double tenant du titre finalement euh, bokkul ci euh, phase de poule bi nga xamante ne moom moo amee ci réewu Algérie ndax Euh, question bi nga xamante ni mooy question bu Sahara occidental mu di frontière bi nga xamante ni ñaari réew yi mën nañ wax ne dañ ko bokk waaye euh, mu doon ba léegi source de refroidissement des relations euh, ñaari réewu Afrique yooyu noonu nga xamante ni ay réew frontalier lañu te ñu sax rompre seen relation diplomatique en août e et puis dans le groupe CECON nga xamante ni da doon loger les lions de l'Atlas locaux on peut le dire ainsi la CAF donc daal di décider maanaam ndegem bokkatuñu ci bile compétition et eh bien dañ yi waaye euh, sur tapis vert dañuy automatiquement perte 3 points euh, fois 3 donc euh, daal di ñàkk 3-0 sans jouer tour à tour contre Madagascar le Ghana et le Soudan c'est comme ça la règle du de la victoire sur tapis vert da ngay perte automatiquement c'est le score Maroc gannaaw loolu di encourir désormais ay sanctions financières et aussi exclusion yeneen édition CHAN yi selon la CAF et pour le reste des poules pourquoi c'est inédit également c'est que poule A et B ñoom quatre sélections chacune ñoom composé woon tandis que celle D et E outre la poule euh, du du Maroc donc et puis celle D et E ñoom composé de trois équipes chacune en lieu et place des traditionnels quatre groupes de quatre équipes chacun euh, ñuy fàttali que dans groupes A B et C comme c'est toujours la logique qui a été respectée le traditionnel euh, en tout cas la traditionnelle démarche les deux premiers ñoom ñoo qualifié wu pour le tour suivant waaye pour la poule D E seuls les premiers de chaque poule ñoom ñoo accédé

neuf ca réewu Côte d'Ivoire mu jeexalee deuxième groupe A à égalité avec la Zambie avec cinq points lors du premier tour et mieux qu'en 2011 au Soudan euh, gannaaw ba ñu ko toglowee premier tour après quatre points synonyme d'une troisième place bi mu amoon derrière kon la Tunisie et l'Angola et devant le Rwanda ñu gis na ne kon Bion avec six points au compteur les hommes de Pape Thiaw euh, daal di nañ rek victoire ak benn défaite en trois rencontres et puis ñuy fàttali kon ces ces matchs là mu daal di dóor premier

sur ñaari victoire yi ñu amoon ci phase de poule euh, ñaari victoire en tout cas yi ñu mën a wax mooy les cartons pleins yi nga xamante ne ñaari sélection euh, ñoom ñoo ko jot def euh, donc ci ci wàllu mun nañ wax phase de poule yi en trois vi en trois sorties trois matchs donc trois victoires pour l'Algérie et Madagascar pays organisateur bi di Algérie kon daal di obtenir lu toll ci juróom-ñeenti poñ ci juróom-ñeent kon yu ñu mënoon a am trois buts marqués aucun but encaissé faisant des Fennecs l'une des meilleures défenses

phase et puis benn bu mu daal di encaissé kon nekk ci euh, ñu bokk ci défense su tournoi bi ci premier tour bi en tout cas même si euh, quand même le scénario on l'imagine peut-être narul woon demee euh, ni mu demee ndekem Maroc nga xamante ne moom joué rencontre et également si Madagascar a profité des défaites sur tapis vert maa du double vainqueur du championnat d'Afrique des Nations qui est le Maroc. c'est ça merci beaucoup Marcel. merci en une minute une minute Mauritanie ci quart de finale yi yan mooy chance wu équipe bi euh, face à l'équipe de la République islamique. Ah, je pense que comme ni ko Hubert doon waxee sànq rek ñaari équipe la yoo xamee ni euh, ñoo xaw a tolloo niveau d'après li ñu wane ci euh, compétition bi mais gis nañ ni que Mauritanie tamit soo leen seetaanee ñoom ñoo xaw a ëpp niveau. bon ci li ñu wane ci football ci adversaire yi nga xam ne ñoom la Sénégal dajeel quand même en match de poule gis nañ ni Sénégal ci match de poule mi euh, pratiquement ils étaient supérieurs à leurs adversaires même si contre Ouganda Ouganda daf ko dóor mais ci match boobu on sentait le Sénégal vraiment au-dessus euh, par contre équipe bi dafa am ay euh, faiblesse sur le plan du réalisme en attaque loolu moom moo leen di sonal donc le dernier match bi dugal nañ trois buts mais on voit que c'est une équipe qui rate mm-hmm. nag ñu ngi dugg ci beneen phase mooy match à directe ñuy dajeek Mauritanie mm-hmm. Mauritanie Sénégal euh, derbi la euh, daanaka équipe bu Mauritanie bi am na si ay joueurs yoo xamee ni euh, Sénégal gi la ñu dëkk wala <laughs> waaw ay sant sénégalais la ñu yor te mm. règlement de compte la aussi règlement de compte pour Sénégal parce que je me rappelle je pense que c'était en 2015 ou quelque chose de ce genre ci éliminatoire yi Mauritanie dóor ñu door yu métti ba tere ñu qualifié ci CHAN boobu je pense que c'est le moment de mm. de remettre les choses dinañ gañe merci beaucoup Cheikh Tidiane dañuy jàll ci leneen Chérif nga baal ma rek heure bi daa jot. <laughs> ma ñaari askan li benn lan. <laughs> Eh waaw ñun ñu waay benn lañ moom macha allah yow mi fa demoon xam nga ci dara. <laughs> ñu jàll ci beneen euh, mbir muy euh, de quoi est-il le nom. ko doon